seetu sëy yi ñu seet xam ne dañuy wàccee ay chiffres rek ne la bu dee neuf bu dee sept la nangam yooyu wuur nga xool ci ab sëy rek yem ca war ngaa xool beneen moyen waaye nag li ma wax sànq doomu aadama yi ñoo bëgg ku leen di nax nit day ñëw di la seetloo léegi ne la dama koo yàkkamti waaw ah, démb delloo naa ñaata ni seen xaalis six personnes maa ngi koy wax sëñ Fall ne man ko yàkkamti yeewi naa la yàkkamtiwu ma dara da nga maa yu da nga maa jox ne ma defal ma am néew nag bu ma koy sang bu ne maa fii tooyul dama koy bàyyi boppam waaw bu may sang am néew ba mu ne ma fii tooyul ma ma bàyyi ko boppam da maa yónnee da ngay toog déglu ma ba ma pare léegi nag loolu nag la nit ñi xam ba fii ne ñu bëree bëri dañ naan la damay seet seetu jooni jooni dox ci actualité nit ñi mag ñi li tax ñu doon li si xaara dañ doon xool nit ki mm. sa biddiw kat jamono bi ñu toll ni position bi mu taxaw dafa lëndëm mm. kat ndax biddiw ni weer wi di doxee ci asamaan si noonu la biddiw doomu aadama di doxe day dox ba mu yàgg mu dugg ci niir lëndëm say mbir taxaw nga am jafe-jafe sa yaram neexut nga def li si xaara wala mbir mooy toppatoo nga def li si xaara ñu wan la ci mbir ne la lii kat sarax bi ak sarax bi boo ko defee yàlla mën a ko sottal tur yàlla bi tur yàlla boo ko ci liggéey yàlla mën a ko sottal heure bu ci nekk am na lu muy signifie ci li si xaar yi ndax mbir mi dana sotti waaye des na ñaari at mbir mi dana sotti waaye des na ñetti weer sëy bi dana sotti waaye des na juróomi at am na ñoo xamante ni bañ leen xoolee seen mbir ne leen dana sotti ak a yàgg waaye toog nañ ay at sottiwut li ko waral que si xaaral xam na ne résultat bi won nañ ko ko mais kan kañ lay jot ci mbir mi loolay problème la moo tax nag mbir mi nag loolu mooy xay bu ma nag xay bu moom fa muy amee na muy sottee yàllaa ko xam waaye mbir mi dana sotti du sotti moom doomu aadama mën na koo xam am na mooy bu mu ko mën a xamee ci ay xeetu nawaafil ci ay xeetu istixaara kon doomu aadama yi côté boobu nañ ca nañ ci dañ ci gën bàyyi ko xel ñëw ci nit ki ne ko li sixaar dama lay dama lay li sixaarloo maanaam waroo xëy suba sax di ko woo yow déglu ko rek

yow mi koy seetlu war nga def sa naafi la war ngaa xool ku la doy mu fanaanool la ko xoolal la ko war nañ la ko xool ci wàllu ilmu nujum ba xam seen i rawxaan seen i biddiw seen i tabia ndax ànd nag àndul lu ca war ci sarax nga def ko soog caa dugg kon yooyu yëpp ay moyen la yu nit ki mën a jaare yàlla dimbal na ba ma dalee xool ay sëy ba léegi nag musuma xoolub sëy borom ñëwaat ne ma ah est-ce doo xoolaat affaire bi parce que taalaa ciy jël boo yàkkamte man la demal demal nga xooli keneen léegi leen boo doxaanee xale bu jigéen ba ngoro gi nga ah, demal nga seeti feneen du tas ngoro gi ngoro gi ko tas ah, dégg nga balaa ngaa dugg kay ci oto ah. ngay laaj paas waaye doo dugg ba noppi toog ba oto bi àgg fu jëm nga naan ñaata paas bi loolu erreur la dégg nga kon loolu ku koy def képp koo ngaa newoon ci ngoro bu kii mën ngaa dox sa dox